mbokk internet yu TNM TV ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay lii nag muy ab émission bu bees rawatina bi nga xamante nag ñu ngi ñëw ci espace médiatique bi TNM TV di installé wu. installé wu nag boo leen ko déggee mbokk yi mooy dañ leen andi lu bees li ngeen xamante ni ñun ak yéen ñoo koy bokk mi ngeen ñu xaar ci li nga xamante ni mooy ay reportage yu am solo ay émission yu am solo ci ay kàngam waaye tamit ñu ngeen ràññee. dépaysage médiatique bile euh, di Sénégal loolu yëpp nag ni nga xamante ne daañu ko tënkaat andil leen ko mu gën a leer ci TNM TV euh, seen chaîne YouTube bi nag ñëw tey ak émission bi di one by one one one by one nag jot ngeen a gis premier numéro bi ak basketteur international bi di xure ci Thiam waaye tey nag dañoo am émission ak euh, invité bi nga xamante ni day yëngatu ci wàllu diine ñu gën koo xam. ci waarate yu am solo yu muy amal ci yenn ci ay télé ci yenn ci ay site waaye tamit waxtaan yu am solo ci réewum Sénégal ak réew mi ñi nga xamante ni noonu lay doxe ci wàllu actualité dama koy bàyyi rek mu nuyoo ak suñu mbokk internet yi ñu daal di nag dugg ci waxtaanu tey bi lay imaam maa ngi lay dalal jàmm. Euh, Cheikh Noureyni maa ngi lay fay di fay sa mbooleem ñi nga xam ne ñu lay seetaan ci àddina bi di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñëw noonu nag dugg ci waxtaan bi njëkk la laaj rek bu ñu waxee tey imaam al amin Dramé lan lañu ñu mën a jàpp ci parcours bu ñu yegg si fii tey. waaw man de mën naa wax ne sama parcours bu fekkee ne comme ni ñu ko xamee judd ci famille diine. Uh-huh. famille boo xam ne famille alquran la famille boo xam ne ñu am jaar jaar lañ ci histoire lislaam ci Sénégal. Uh-huh. xam nga ñun Saalum lañu dëkk te Saalum ku ko tudd rek di nga tudd Tafsir Maba Diakhou Ba. Maba Diakhou Ba nga xam ne moo taxawaloon état islamique bi foofu ci Saalum. léegi ñoo membre fondateur yi man sama maam ci la bokk. donc ñun euh, loolu mooy suñu jaar-jaar ci wàllu diine beneen bi suñu famille aussi euh, li ñu leen xamee mooy alquran. jàng ko jàngale ko. te yi ñu mujjë teunk lu mat plus de 400 et quelques dara amna yo xamanteni ci suñu famille ci lañu bok ay drame drame ñoko sanc. ñoko sanc donc lool moy jaar jaaru famille bi bo juddo ci famille bu mel non aussi wax deug yalla ci lool lañ lay yar. ci lool lañ ñu yar jangal ñu alquran suñu dekk bañu bañu fer muy dag benin drame ñu joggé fa euh, dem njaareem. njaareem waa jurbel jurbel hmm. xam nga jurbel ñu bëri ci ñiy jàng alxuraan dañ fay dem hmm. parce que dañu am benn particularité mooy da ngay mën a bind sa bind day rafet te jooju la jamono boo mokkalee alxuraan dafay bokk ci li koy mottali mooy ñu ne bind nga kaamil moo tax ñu baree bari dañuy dem jurbel jàng alxuraan en même temps jàngaale bind hmm. waaw mais bi ma nekkee njaareem foofu laa wàccee xaj suuf bi ba dal xaaj su xaaju kaw bi mais boobu yàlla def euh, xam nga rek boo nekkee ay nit ñoo xam ne dañ laa bëgg say say way jur ñoo xam ne euh, maanaam. nit say jege ñaale. non yaayu daara yaayu daara. waaw yaayu daara ak baayu daara. man dama ci amoon ñoo xam ne dañ ma bëggoon ba mu ëpp. yàq ma la. mënoo maa gis mukk ne kii ab taalibi bu bu ñëw ci dëkk bi la bo muy Baye Mbàkk yu Mbay uh-huh. eh, yal na ko yàlla yërëm góor ko ñëpp xam njaareem lañ uh-huh. ak doomam Galas Mbay uh-huh. ñoo lañ ma toppatoo woon daal taalibi bu ñu gàttale woon laa laa laa doonoon macha allah bon yàlla def sama xel nag man ne léegi fii mënatuma fi jàng parce que léegi miin naa fi te it eh, man lu ma def lu dul jàng rek eh, du neex sama papa léegi ci laa jël décision ne damay dem kokki daaray kokki waaw daaray kokki uh-huh. léegi kokki nag foofu nag mooy mooy daj dëpp gi li ñuy wax naan mooy mooy yëfi biree géree yi dëgg foofu la ñu nekk uh-huh. soo bëggee jàng bëgg a sox xoslu bëgg a métti xam àddina jamono jooju da ngay dem kokki école la daal waaw daara mooy daara kokki waaw macha donc noonu laa demee daara kokki euh, nekk fa ba yàlla dogal sëriñ bi génn àddina muy sëñ Ahmad sa xiirloo sa xiirloo waaw mais boobu fekk na wàcc naa ah. presque wàcc naa maa ngi tari par fukki zip après bi ñu jógee nag ndeysaan ci dëj bi ci laa jógee foofu nag delluwaat njaareem uh-huh. dégg nga bi ma jógee njaareem nag ma doog a dem nag Tiwaawoon Tiwaawoon waaw donc Tiwaawoon moom foofu laa dalee xam-xam uh-huh. waaw parce que ñun suñu famille suñuy wayjur ak ñoo ñepp famille tiwa ki lañ wa tiwa wa tiwa waaw ñooy seen ñoo le ñooy seen lepp ci diina dal donc motax dem fofu jangi fa nekul lu mané donc ñu dem fa jang fa dal fa euh ñu defaraat ñu suñu lamiñ seigne mbay si abdou abdou ñukoy wax euh, njool foota ci ñenn ñi mais ñun serigne rek lañ koy wax muy pédagogue nak. waaw serigne waaw parce que man bi may ñëw fofu ma ngi tari par fukki hizib uh-huh. mais bobu euh, làmmeñ bi baxul won uh-huh. mu defaraatal mako ko ma kharijul huruf euh, jangal ma tajwid ma jang ko man ko euh, ba paré nak continuer njàng mi ma ma dal xam-xam dal xam waaw ma dalé xam-xam li li jang ci daara yépp ma jang ko uh-huh. mais fofu nak nekkine bu terrible la fa nekkone ci daara ji maanaam ña fa nekkandoon ñëpp euh, xam nañ ne géree laa woon daal temps boobu noonu. <laughs> macha allah. <laughs> léegi bi ma ñëwee fii dakaar ñëw nu dugg Franco. Uh-huh. waaw Franco foofu laa defee BFM def foofu bac daal di daal di pare. ñëw nag ne wax ni yaa ngi ci capitale bu Sénégal. imposé fii est-ce que jàppoon nga ni lu metti la woon pour mën a am say repère am say marque ci environnement bu mel ni dakaar waaw mais mais xam nga boobu lit dafa yomboon ba mu ëpp sax. parce que boo milieu njaareem soo ko xamee. di dund ak milieu taalibe taalibe yi di jógee ci gox yu nekk ngay daje ñoom di dund ak ñoom bokk leen waaso bokk leen aada bokk leen culture nga mën a dund ak ñoom loolu pour nga dem dund feneen du la jaaxal. du la nga jógee fa dem kokki plus de 3000 taalibe ñuy jógee ci dëkk bu nekk ñëpp sant yëpp sëriñ sépp nga dundandoo ñoom. vraiment boo jógee foofu ñëw Dakar loolu du la jaaxal. du la jaaxal looloo tax bi ñu ñëwee dakaar facilement dañu adopté. intégré waaw dañu intégré parce que tamit fekk boobu man dëgër naa. ci am naa bagage intellectuel yoo xamante ne ni. jàng naa ko alhamdulilah li ma jàngoon comprendre naa ko comprendre naa ko. yàlla def na lugal arabiya bi mooy làkk bi. mën naa ko. mën naa mën naa bokk mën naa wax ak ay boromi xam-xam. mën naa wax mën naa bokk daal dafa yomboon. dafa yomboon pour man. ma bokk trop macha allah. ñu gis nag bi nga dugg see ba noonu ñëw ci espace médiatique bi est-ce que xajal loolu lañ tamit nga mën a bokk carrément ci liggéey bi nga xamante ba nga egsi wa tey waaw wàllu média xam nga cest dire nit li ñuy wax rek léeg nit xaritam moo koy duggal ci lenn wa ma ngi mom lay wax léegi soxna Fatima mi manam am na papam lu bari lu ma dugg moo ci duggal dugal lu bari lu ma dugg mang ko ci mako ci duggal muy alaaj Mamor Mbeng manam xarit bu baax dafa am solo man dama am xarit bo xamne ne daf ko may xam-xam ci walu communication xarit bo mu ngi tuddu aliou ndjay aliou sama doomu ndey la Euh, moo moo moom moo moom moo doon def émission grand rendez bu nekk 2STV yi uh-huh. muy émission bu doy waar 2012 uh-huh. moo nekkoon meilleure émission ci Sénégal waaw uh-huh. ñu baree bëri ñu nekk ci média bi jaar nañ fa foofu lañ jaaree fa la génne àddina bi même Tunkara waaw waaw ñu bëree bëree bëree bëri jaar nañu foofu noonu léegi nag euh, kooku mooy sama xarit léegi boobu ñun dañ daan toog lu yàgg mooy wax na ma il faut ma créer ay concept émission boobu mu ngi togg grand rendez-vous bi grand rendez waaw léegi ma ne ko man moom émission bi ma bëgg ci àddina mooy émission boo xam ne day wax ci dund yonent bi mais doo ko nettali ni comme benn gàmmu booy kii nii mais danga koy def analyse génne ci ay bind mhm. jël ci ay orientation taxaw daal jàngale ko jàngale boo xam ne ku ne mën nga ci tabax réew mhm. mën nga ci defar sa àddina am si projet de société bu am solo waaw léegi boobu mhm. ñun boobu xalaat yooyu am nañ ko bu yàgg dëgg la waaw mais ñu denc ko mu denc bosam ma denc sama bos. léegi Alioune nag bi mu commencé ñëw grand rendez bu ba rend grand rendez bi am doole nit ñëpp di ko coow. Euh, benn bis la ne ma yow moom xaaral dinaa la jaay dégg nga ma ne ko yaa ngi bëgg lu jafe nag man euh, ku am sama prix yombul comme dañoo miinante noonu. Uh-huh. mu ne ma dinaa la indi grand rendez-vous. Euh, ndeysaan mu wax ma ko sawaruma ci woon. Uh-huh. mu topp ma ci topp ma ci fekk boobu am na benn xawma shérif la xaw ma daal dafa am ay taalibe ne day ñëw foofu léegi Aliou Ndame il faut nga ñëw def chronique chronique waaw mhm. teewee émission waaw teewee euh, ci wàllu diine gi ma ne ko non Aliou xam nga comme affaire sëriñ la te comme dafa am ay taalibe te Sénégal dafa bëri ay fanatique mhm. da ngay ñëw di wax affaire xam-xam seen sëriñ yi mer wala taalibe yi mer yow tamit say taalibe mer bu ko defee problème day am man daal yooyu sawaruma ci. dëgg la ma gàttal ma gàntal ko alin topp ma si daanaka six mois. Uh-huh. ma ne ko comme loolu la nag dinaa ñëw dinaa ñëw def si émission bi émission boobu émission yi gën a am doole 2STV yi mooy boobu ma ñëwoon ci la bokk. d'ailleurs àddina bi ñu bëri ci lañ ma xamee. Uh-huh. waaw léegi nag bi bi émission bi jeexee rek dafa jeex rek. dégg nga Alaaji Njaay moom gëmeetu ko ndax kontaan. mooy borom 2 yi mhm. ci la ma woowee daal di muy proposer ne ma il faut nga def émission. émission ci 2STV ci kër gi. Mhm. Mhm. comprendre nga léegi euh, am na sox yu ma proposé woon ma ne ko non mais yii nga may wax man sentiruma ko. man lu li ma bëgg a wax mooy yontu yàlla Muhammad. sallallahu dañ may jox émission boo xam ne ci yonent bi laay wax. am naa concept bi am naa lépp defar naa lépp. mu ne ma demal nga wax ak Marème. ma wax ci ak Marème wax si ak imam Dame comme ñu ñoom mooy suñu kilifa. Mhm. si wàllu diine di suñu nijaay lu bëri mu def ko ci ñun ñu wax ko ko mu mu mu mu mu adopté ko waaw mu adopté ko yàkkamte si. Mhm. donc loolu moom mu dugal 2STV yi nekk émission Al Amine. Mhm. muy muy lu am solo ñu gis ne nag boobu ba tey yaa ngi woy ci euh, paysage médiatique bi euh, mais imam doo fi ñëw ba dem te duñ la laaj. Euh, su dugg si si wàllu politique mun nañ ko duppee noonu wala tamit ci parti bi di Pastef waaw politique nag euh, daanaka man dama cee juddu parce que man damaa juddu fekk sama papa faral Ablaye Wade. dëgg la di ngay dégg mag ñi daf si am ñoo xam diggante Abdou Diouf maanaam diggante Senghor ak Ablaye Wade daf si am ñu ko jàppee woon pas-pas. pas-pas diggante Senghor ak Lamine Gueye dafa am ñu ko ñu ko jàppee woon pas-pas. Mhm. xam nga mag ñi dañ daa dafa am ñoo xam ne mbiru diine lañ ko jàppee man duma fi bàyyi Mouhamad di di woteel am Léopold. dëgg la noonu lañ ko jappé won donc ñu bari bari. lool mo leen mo taxone ñu faral Lamine Gueye. Lamine Gueye waaw. président Lamine donc man ci famille politique sam papa yàgg yittiwoo politique. deug la faral Lamine Gueye ba ni ko Senghor di génnee ci yef yi mu faral Ablaye wad man sam papa Ablaye wad la mos bëgg diko défendre diko ki ci yooyu non mais comme yalla dafa def aussi man jamono bi may nekk Dakar. euh danaka lu bari ci formation.

bi ñuy rey Moustarchidine yi. Hmm. Euh, bi bi ñuy rey policier xeex bi loolu yëpp dama ko dund. loolu histoire bi waaw Moustarchidine yi ñu jàppoon ñoom ñëpp yóbbu leen dig. Hmm. man mii maa leen daan yóbbul añ. dëgg la comprendre nga. Hmm. kon man affaire yi dama cee yàgg a nekk dama dama cee yàgg a nekk mais loolu aussi dafa am lu nekk lu yàlla def ci man mooy man injustice moom bu may révolte duma ko tey. dëgg la waaw loolu ci man la nekk donc noonu la demee. même Ablaye Wade bi muy xeex ak Idrissa Seck. dama dama dama dama dem di xeexle sa Seck. di ko défendre fu mu woote ma dem di di ci te Idrissa maak moom xamante wuñu et pourtant gëwuma ko. man gëwuma ko ci politique. mais injustice bi nga jàppoon ni moom moo am euh, nga gis ni daal da nga ko waroon a xeex yow. waaw loolu loolu laa doon xeex. dëgg la beneen alternance bi. dama koo xeex def ci sama kemt lay kattan. Ablaye Wade fu mu woote dem naa manifestation fu ñu fu ñu woote dem naa. dégg am na jamono boo xam ne Moustarchidine bu ñu bi ñu jàppee sëñ Moustapha tëj ko ci kaso bi benn ñaan la ñu joxe woon moo dordu ci réew mi yépp fu ñu dajee dañ naan allahuma ahlik Abdou Diouf wa ahla Abdou Diouf wa dammiruhum tadmiran ah. ñaan googu si ñu ko daan jiite ci laa bokkoon mooy yàlla na nga àll ak Abdou Diouf yàlla na nga àll ku ku ànd ak abdu juuf yàlla nga leen écrasé ñoom ñëpp ñaan googu ñëpp ko mënoon waaw man dama daan si ñu daan jiite ñaan yooyu ci laa bokkoon ba ni Abdou Diouf daanu. donc pour wax la ne euh, du tey lañu dugg ci politique. Ah. waaw loolu donc daf ñuy may benn transition bu am solo ñu daal di des di nag ci politique Sénégal ak njiitu réew mi fi ne muy euh, président Macky ku ne nag euh, xam ne ni euh, jamono ji coowal troisième mandat moom mooy nag ubale réew mi ci wàllu waxtaan yu bëri ba ci sortie bu mujj sax wax ne ni euh, bu mu demee ci États-Unis nee na moom ci moom lay dépendre ci wàllu troisième mandat loolu jàngat bi ñu ci am. waaw dama ne keroog bi ab Macky Sall. Uh-huh. waxee ne du ma ne oui du ma ne non. Uh-huh. te 31 décembre ba. bés boobu. Uh-huh. keroog am naa gàcc ci sama biir xol. mbaaru danga nga bokkoon si ñi ko doon euh, xeexle 2012. Euh, déedéet xam nga man. man xeex xeexalu ma Macky Sall. dëgg li ma doon xeex mooy Ablaye Wade jóge fi waaw yàlla mooy jóg nguur ku ko neex. Hmm. mais ñun jamono yi ñu daan xeex yëpp mag Sall nekku fa woon en toute sincérité benn yoon laa ko gis place de l'Obélisque mu yor ger maire gàddu. maire gàddu mais yeneen xeex yi leader yi daan ñëw yëpp doo ko fa gis moom mu ci àll bi di wuti militant. Hmm.

maayanu sénégalais waaw da leen maanaam da leen da di def technique techniquement. Uh-huh. ci lay jaar ci seen kaw. loolu mooy lan bu fekkee da ngaa am jur woo xam da nga koo bëgg walla xarit boo bëgg. Uh-huh. ngeen ngeen toog bokk wax añ ni comme ñu togg nii toog nii waxtaan nga dem ñibbi féeg minuit waa ji génn àddina. Uh-huh. ñu xam ni nga bëggee woon waa ji. xam nga problème bi nit ñi di am dañ naanoon lii nan lañ ko waxee nu rëy nii. dañ lay préparer. psychologiquement. waaw psychologiquement. togg ko ba mu ñor. waaw mhm. waaw. kii euh, Cheikh Koudous na la ñu waa Nouré am sa jot nga ko. Mhm. nga non léegi lañ tàqali dëgg la waaw waaw waaw tey de dëkk bi daa tàng tey jii moom waaw moom est-ce que yegg na bi mu bi mu jógee foofu doo ko woo xam. moom bu ko defee dina. waaw mun na yëngal bopp. waaw da nga ne waaw mais Xudus lu may. laajee nii subitement lu may laajee yegg naag yeggul. Mhm. fekk mu ngi lay préparé. dëgg la. nga nga toog fa la ne yaay Fatim daal lay woon ne la nuuree ne mais yëg nga bi am. Mhm. dëgg naa dafa am ko ci kii ku am na daal soog bu fi nekk quoi. Mhm. mais il paraît am sa waay bi mu fi jógee ci choc bi la bokk de mais da mais daal defe naa yóbbu nañ leen hôpital. te fekk waaj a dee na bu yàgg. dëgg la. Macky Sall noonu la ñuy naxee c'est-à-dire ku xool li muy teg yëpp fa muy téere ji ci cëppaandaw ja mooy candidat lay doon waaw moom xam ne ne sénégalais yi attanuñu mu tëb na leen damay poser candidature léegi nag dañu koy wax ndànk par ndànk gisoo ndànk par ndànk du ma wax wii du ma wax du ma wax non léegi képp ku wax ne bii mooy dernier mandat mu ne la ci biti dàq la du ànd ak yow moom kay ñoom suri ki kaba waaw mhm. yemul foofu mhm. euh, rax ci dolli képp koo xam ne nee nga mën naa nekk euh, man nga mën naa defaat troisième mandat ñu yokk la jox la cër benn benn ñoo ko doon wax léegi ñaataa ko ñoom ñëpp dañuy envahir plateau yi di ko wax. Hmm. te amul benn nit ci ñoom ku ñemee dem am fit taxaw ci télé naan mag Macky. Hmm. day day def troisième mandat lu dul moom moo ko bëgg. moo bëgg nga wax loolu cest à li mu war a wax moom moom la bàyyi gaayam yi di ko wax gaayam di ko wax ci tele yi. donc loolu mooy dox ci kaw maayinu sénégalais yi. Hmm. mais Macky Sall deful benn benn acte buy posé ne jeexal na léegi li mu wax Amérique loolu américain yi bu ñu ko déggee moom dinañ ko rey mais dinañ ne ndeysaan ndekki ndekki àddina bi ba léegi am na ay naxandoom lu toll ni réew benn nit taxaw naan ci man la dépendre man man maay xool dinaa defam du ma def loolu amul fenn ci àddina bi di nga nekk candidat wala doo ko nekk dépendrewul ci Macky Sall ci population bi la dépendre Ah. amul fenn foo xam ne benn nit mooy taxaw naan su ma neexee def su ma naqaree def. Ah. loolu ci peuple bi ci seen kaw lay dox léegi léegi Cheikh Nouré. man dama ni euh, kàddu ci lañ daan jaayantee or ci lañ daan jaayantee jama danga ma daan jaay or jaay ma jama jaay ma fas jaay ma kër te doo bind duma ma bind nga dem ma dem. ñun loolu mooy suñu aada. mais ci kàddu rek ngeen koy tënk. loolu mooy suñu kóllëre loolu lañ xam. Mm-hmm. Lat Dior Diop keroog bi mu dajeeg Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul Cheikh Ahmadou Bamba ne ko toogal ma warlu la nangam ak nangam Lat Dior daf na ko sëñ bi gor yi ñu may xaar jox naa leen sama kàddu ba pare. Mm-hmm. te boobu xam na ne bu demee dee. dee dootul gisaanteeg sëñ bi mais gor ci wax ja waxuma ay constitution parce que constitution ñun liñ ci xam mooy li ci li ci ëpp la ñi koy bindu jubuñu ragaluñu yàlla ragaluñu yonent bi bëgguñu askan wi seeni promotion la ñuy lañ lañ leen di jural mais yàlla taxut yonent bi taxut na réew yu ci àddina bi ay constitution conseil constitutionnel moo ko taal ab juge moo taal parce que dafa wax lu neex nguur ga yow am nga bu rafet ñu ne Macky Sall war naa dem di jëm conseil constitutionnel ne du ma damay def candidature ñu koy ñu koy ñu koy rejeté. loolu xel mun na ko nangu. mais bu ñu leen déggee yéen tamit euh, léeg-léeg seen kàddu dafay mel ne da ngeen di tuutal suñu institution yi imaam. ñoo tuutal seen bopp parce que àttekat bu maanuwul. Mhm. dafa tuuti. àttekat li koy jox valeur ci àddina mooy maandu mais àttekat bu maanduwul lu mu dégg moom la. est-ce que xam nga lan moo tax yàlla yónni yónnent yi yëpp mu yónni xam nga ko lan moo tax yàlla yu wàccee téere yi mu wàccee yëpp ci àddina bi li yaquuma naasu bil qist mm-hmm. ngir justice taxaw ci àddina bi yoon ak yoonal waaw yoon taxaw maanaam nit ñi tegu ci yoon mm-hmm. nit ñi tegu ci yoon mais yow nan ngay respecté ci àddina attekat boo xam ne atte na ba pare yow mu wér na la sa diggante yàlla ne kii maanduwul boo ko respecté da ngay naafeq rek wala ngay mas-maslaa mais doo ko respecté. léegi ñu mel noonu nga xam ne tey ñun ñañ tànn ñu ne ñooy wax di nga nekk ak doo nekk ñun xamuñu leen ñun wóoluwuñu leen seq ñoog ñoom. xamuñu ci yan condition lañ leen fal xamuñu lu luñ leen wax nga ne di nga wóolu ñooñu ah en tout cas man wóoluwuma leen. donc troisième mandat bi moom mun nañ jàpp ni waa ji moom ci yoonal ko la jëm. dëggal ko itam waaye yi ñu gis yëpp loolu lay wane. dëgg la waaye nag. wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin doomu adama pexe la am mais yàlla dogalam la am yàlla dogalam la am yow doo gis nit ku tabax kër ba pare tabax ko nit ñi ku romb naan kër gee ko rafet mhm. muy waaj pour toxu balaa ba muy tox mu dee ci yoon wi dogal fekk ko ci mhm. Mhm. ndeysaan daaw gis naa gis naa benn waay boo xam eh, daa jënd oto 4 x bu bees tàq nekk ci oto bi moom njabootam ñu accidenté premier war bi ñu premier yéeg bi ñu yéeg ci kii bi nga xam ne dañ koo jënd ñu indil leen ko bitim réew bañ ci duggee ñoom ñëpp ci leen accidenté faatu yi ah. bëgg-bëgg la rek mais ñoom ñun bu ñu jàngatee dañuy xam ne lii la ñu bëgg waaye yàlla nag li muy dogal mooy dogal moom moom moom moo ko xam dëgg muy mel ni rek euh, dinaa la sànni xeer tuuti imam ndax mbaxane bi kat couleur verte la ak euh, rouge muy mel ni rek euh, waa Pastef la non mbaxane mi nag daa yàgg hmm. mbaxane mi sama xarit bu bu ñuy hmm. baax la sama xarit bu baax mais boolewul dara ak couleur Pastef waa dama lay wax dama dama lay wax rek sama xarit boobu hmm. kooku kooku ni ni alaaj maam Mor mel si man noonu la mel si man moo ma ko jëndaloon màkk waaw mu ko jëndaloon màkk ca boori Kaaba ga. Mhm. moo tax ma fonk mbaxana mi. Mhm. man boobu jamono boobu xaw ma waaw ah, mais dafa ndur ak kuréelu boobu jamono. Mhm. xaw woon ne sax lu ñuy wax Pastef dina judd. kon mbaxana amul rapport ak pasteur dara dara. ah mais ndiroo nak loolu ya, man nag ko gis mom bu tolni mom dala nan imam mom eh. tak na rip ci non xam na li mo wax di mo wax moy sa mbaxana mi nice na. ba hmm. no rafet mom ken waxu ko mom mais fi tolni mom nii moom. Hmm. këlooru Pastef léegi sa taxaway ci euh, mbir bi nga xamanteni euh, gis nañ ko débat yang ci dem. muy mbiru soxna sidi di Adji rabi sar ak Ousmane Sonko njital parti passif euh, ba tay nak mbir yaangi dem di avancer. ba si mu jëntal ba ñu gis ay audio démb sax eh, kii di MC Niass def na déclaration de presse wax ni eh, ni mbir mi demee ak nu ko Adji Raby Sarr doon nettali mbir yi yow audio yi imam eh, nuñ ci mën a moom nees mën a jàpp si say kàddu. audio yi dañ ciy sant yàlla mais mënoon na ñàkk. mënoon na ñàkk. waaw bu réew mi jaaroon yoon. Uh-huh. justice jaar yoon. wax dëgg te yàlla tax. àtte dëgg te yàlla tax. bañ a par parloo yoon bañ a def jeng yàlla xam na ne MC tànkam du dagg foofu man de ba ma juddoo ba léegi dem naa ci réew yu bari ci àddina bi ab tukkikat laa waaye c'est la première fois ci sama àddina ma gis nit ku ñu tuumaal viol ñu dem médecin ba xool ne viol amu fa waxuma la sax viol mais rapport sax amu fa mhm. waxuma la sax waaye kii eh, diir bi ñu wax yëpp sëyu fa mhm. docteur ba bind loolu signé ba noppi génn ci ay télé tamit wax nii ba léegi mhm. ñu taxaw ñu continuer daa am lu ñuy seet maanaam c'est-à-dire gis nga lii nii gàcce gu rëy la ci senegal suñuy doom ëllëg. dinañ dinañ dinañ jàng histoire bi ne noonu neexul ba neexul mais suñu maam yi ay farceur la ñu woon quoi man waxuma waxi MC Sénégal man man bu ma déggee ñu naan waaw doyen de ne diw. diw suba lay wuyu man dama naan waaw lu muy wuyu ji. ah leeral mi ndax ba si mujjantal ba madame Tall madame taal bi nga xamante ni moo nekkoon yor ab Adji Raby Sarr moom it dem na ci kanamu juge bi moom it nettali na mbir mi dem. Euh, Cheikh Noureyni li yoon wax. ñu koy wax dëgg te yàlla rek tax keroog bi ñu ubbee kayit bi euh, médecin bi wax ne viol amul keroog lañu waroon a yemale wax ji foofu mu jeex donc dañuy écarter ay seede lépp seede jaratu ko seede bu mag bi cëppaandaw gi yow wiiri wiiri jaari ndaar yi mooy certificat médical bi fi la ñuy mujjee jiwaat nee na viol amul léegi ku tudd Ousmane Sonko daal moom bu ñu ko jiiñee viol bu certificat médical ñëwee ne defuko dañ nan ko waaye yow yow certificat médical du rek moo lay sat moo lay setal ah. loolu koy nañu wutal ben juridiction wala ben loi bo xamné bi c'est spécial pour Sonko. Ah, mais chez bour bi la tek bëtam nak nit ñi ñi xam ko. chez bour bi la tek bëtam nak fi mu légui légui légui léegi léegi boobu jàll na. waaw. ña doon liggéey ci salon ba yëpp. seetalaat président Ousmane Sonko. président président parti Pastef. président Ousmane Sonko. président parti Pastef. ñëpp setalaat ko. muy ñaata set. ñaar certificat médical setal na ko ñiy liggéey foofu setal nañ ko muy ñaari setal. Uh-huh. ñetteel bi PV ba capitaine ba yor ñu falsifié lépp lu koy takkal ñu def ko ci. lépp lu koy setal uh-huh. ñu ñu ñu ñu dindi ko ci. Uh-huh. yàlla weer loolu yàq dil boobu du ñaata set ñett est-ce que yaa ngi dégg li may wax. maa ngi lay dégg bu baax Imaam. ñeenteelu setal bi. Mhm. ñeenteelu setal bi xale bi waxoon ne li ma yor ci ay euh, preuve mhm. su ma ko tegee ci kanam juge bi président Ousmane ci boppam mooy dem moom ne tëj leen ma fan la mujjee mu dem taxaw naan fii la xar yi jaar janax yi génn fii nii. suñu waxul du ma wax. Mhm. lépp doxee fa tàbbi àjjana lu toll ni tarfatal ay ci yoru ko ci ay preuve yoru ko ci ay preuve. Mhm. ñaata set. ñett ñeent. ñeent juróomeelu set bi président suñu suñu suñu suñu kilifa gu baax gi suñu MC Niass. Mhm. ñëwee ki audioom wallaahi. mais audio bi imaam audio yi doy na waar de. ndax bu ñu si tuddee ay kilifa diine ay. léegi balaa ñi ngi yoo xam dañoo yor ay ndombal tànk ci réew mi gis nga sama borom uh-huh. nu rëy de boy ragal ragalal yalla boy gem gemal yalla deug la booy wolu wóolul yàlla uh-huh. gis nga bi problème bi amé uh-huh. man dama sété président Ousmane Sonko ma top mom mu top xaritam serignam seigne Abdou top révélation la li waaw bëgg nga wax ma num moom njiital parti Pastef. wallaahi alazim. gars yi enregistré leen de ndax imaam moom. waaw moom maa ngi koy soog a dégg. mu ne ma ne ko damaa bëgg nga wax ma ni mbir mi demee. Mhm. mu ne ma yàlla xam na ni lii ñuy wax dara amu ci. moom mu mu seddal mu wax ma lii. mu ne ma dara amu ci. président ne ma. Mhm. dogalu yàlla buy ñëw da gumba waaw. bu dogal bi jàllee ba pare nag ci ngay doog a gis mu ne ma lii dogalu yàlla la ne ma mais loxo yàlla mu ngi ci biir génn ci loxo yàlla mu ngi ci biir uh-huh. boobu fekk am na ku doon envoyé benn message juum envoyé ko ab avocat am président Ousmane mooy xale boobu ñuy wax Bamba Cissé Bamba Cissé maître waaw uh-huh. te message boobu la ca nek ma nga ca ya ngi deg ta man wax deug yalla xam nga man li gis ni euh, reey ni uh-huh. man yalla gëm bi la bëgg jeexna euh dama doon dem rek di wax ni rek pour kuma laaj ma la tok nak président wax na ma li uh-huh. mais wallahi al azim imam bi tok sama rak la uh-huh. xam na mo bu baax xam na ni bi yefi amé dama na ko dara amu ci parce que loolu l'islam sant tey bu ñu toogee ñun ñëpp ñu ne ñu Mouhamadou Macky mii nii eh, daa séq ak jigéen ndaw si ñëw ne moom la ñun xam lu ñu dina sant ñun ñëpp dañ naan du dëgg. weddi d'abord. weddi. de doon naa ko dégg ci commencement bi coow yi. mbir mi amee ay naan la fa xew fekkee ko kon dañ ciy maandu ma leen maanduwu leen loolu diina waxu leen ko. diina waxu la nga naan dama fay damay maandu la fa xew fekkee wu déedéet diina def naan la du dëgg waxal du dëgg. da nga koy weddi catégoriquement man ci loolu laa mos a dox. donc ba fi mu toll nii mbir mi daal jàpp nga ni complot neen moo ko moo ko laal sëñ MC bi mu ñëwee audio yi mu joxe xam nga man audio yi ba léegi dégguma ko. ah imaam yow audio yi imaam man loolu. est-ce que loolu dina yàgg cest à xam nga man. wala bañ gaa jël si la. jël si ma yow di yóbbu ma ah, fa ah audio yi kat fi mu toll nii moom. ma xool kan moomu ko doon waxati waaye am na sama benn mbokk. waaw bu ma defal ndànk de. Ah, temps dañuy jël si dañoo gaaw si jàppaate affaire yooyu noonu. Uh-huh. waaw xam nga yooyu yëpp sax. Uh-huh. yëfu sénégalais la rek. Uh-huh. mais sénégalais yi suñu yëgoo rek ñu teel a bëgg kaso xaritoo kaso miinanteeg kaso. gis nga kaso école la kaso danga koy jël ak philosophie yàlla xam na ne euh, nuuree. tey am na jaamu yàlla yoo xam ne yaa ngi koy bëgg a def sa kër doo ko mën. mais booy ñu tëj ci kaso bi bu ñu lay wax spirituellement dañuy gën a dëgër dañuy gën a dëgër tey boo bëggoon a julli nga ne guddi gu jot dinaa julli vingt rakka doo ko mën parce que yaa ngi fii gaa ngi lay woo fii mais nga dem vingt yow imagine ñu tëj la trois mois quatre mois cinq mois six mois. Mhm. guddi gu yàlla jot trois heures du matin. nga taxaw commencé di naafi la. yow boo génn foofu spirituellement li ngay am kan moo xam ne muy toll. nga yóbbaale say livre di bind. Mm-hmm. di xelaat ci kaso bonul de nit ñi ñoo ko war a jël ak philosophie. Mm-hmm. ñoo ko war a jël ak philosophie. Cheikh Ahmad Bamba ñaata la tëdd ci kaso. tukkee ko. ah mm-hmm. kenn xamul nu mu toll. du gis sax benn nit ku ñuul. dégg nga imaam Alioune Badara Ndao barki Dembo Ndiaye li mu daj ci kaso bi ah? kaso euh, li bon xam nga mooy lan dangaa dem ci kaso bi parce que ba nga fay dem dangaa sàcc. waaw bu fekkoon yoon am na ñii ñi jël alalu askan wi tey ñoo waroon a dem ci kaso bi uh-huh. ñu ne da ngay jaay drogue uh-huh. dégg nga wala da ngaa rey nit loolu loolu bu la yóbboo ci kaso yow xamal ne da nga koo yelloo uh-huh. mais lan moo tax ngay dem kaso ànduma ak waa ji wala damaa wax sama xelaat loolu bu la yóbboo kaso honneur la yow da ngaa dugg kaso yontu yàlla yuusuf kaso yontu yàlla yuusuf na képp ku fa dugg boo génne yàlla da lay yëkkati moy kuñu togn dugal la kasso uh-huh. deug kuñu togn dugal la kasso man awma problème ci kasso en toute sincérité uh-huh. donc loy denk rek euh, Ousmane Sonko njiital parti passif euh, fuñu jëm tay ji ni moy 2024 2023 année post électorale xam nañ ni nak du yomb mais tay bo amone kaddu bokay koy tay mu wara a lay wala mu wara mu taxaw jamar lok nguur gi fi ne ànd kok nak euh, ay militant am xam nga bala may wax ci président Ousmane limakoy wax uh-huh. moy Serigne MC Niass lay waxal Ah. sëñ MC Niass euh, Nouréyni ah. euh, sëñ MC Niass sénégalais yëpp war nañ ko fonk war nañ ko jox cër war nañ ko màggal ah. war nañ ko kañ parce que dama koy wax démb ma ne MC du pa ci xale yi nga koy booleeg tey lu mu bëggoon ci alal mën na koo am te soxla na ko bu laajoon milliard dinañ ko ko jox. ci ay proposition waa ci ay proposition mais boo gisee nga am deret deret deret deret deret bu baax am cosaan bu baax am solo mooy kenn dala dul mën a jënd kuñ ne kuy sa bàyyi ñu ne alaaji Ibrahima Niass buñ ne kuñ ne kuy sa maam ñu ne Lat Dior jóob xam nga loolu rek mooy garanti bi mm. nit mu nit amul sa prix ci àddina mm. mais MC li mu def histoire dina ko bind histoire du ko fàtte yal na ko yàlla defal tawféex hmm. gën ko jox ndam parce que wax na dëgg te yàlla tax te loolu la alquran wax wala taktumu shahaadata li nga xam muy dëgg nga war ko seede na nga ko seede bul ko nëbb loolu la MC def hmm. yal yàlla gën koo dooleel hmm. gën koo fay parce que li mu def senegal la ko la ko defal waaw li ma koy ñaan nag mooy dégg naa mu wax ne waroon nañ ko woo dëgg la dégg nga kilifa yi wax seeg moom. ndax sàkku na parce que mbir bi dafa demoon ba xaw ko dépassé. léegi nag li ma koy ñaan moom. mooy bu mu xaarati kilifa yi woo ko na former délégation wër xalifa yëpp yóbbul leen lim yor. comprendre loolu nga koy diggal. loolu laa koy diggal moom na def délégation dem Touba dem dem fépp foo xamante ni kilifa diine nga fa mu dem waxtaan ak yow parce que euh, gis nga réew mi bu ñu tàkkoon bu réew mi dee woon fii nii maanaam ñu ne dañuy xeex téeméeri nit dee trente taalibe yi yëpp ay murit la ñuy doon yeneen trente yëpp ay tijaan la ñuy doon politiciens yii ni ñooy mujj lu ñu am luñ ci deele uh-huh. ñëpp sëñ Muntaxa leen di dëj ñii sëñ Maaxi Ñas leen di dëj ñii sëñ Babacar Si Mansour ñii sëriñ Canaba leen di dëj uh-huh. comme yow bu dee amee sa njaboot ñooy dee sa taalibe ñooy dee mais nag bul nangu dee am te fii ñu toll ni lu fi waralati taali taal dossier taal rey fi nit ndax dossier Adji Sarr loolu amatu fi parce que yëf yi leer na nañ law la amon ci suratu yusuf ana hashas xas alxaq ana raawattuhu an nafsihi wa innahu la min alsaadiqin loolu fi lañu tollu hashas xas-xas alxaq dëgg leer na nañ nañ nañ waaw man sama classe mom xam nga bañuy tàmbali la ler ci man man mosuta lëndëm ci man waye tay sénégalais yi affaire bi leerul won ci mom ñom leer na ci sen bët donc fii léegi léegi nañu jéem a xool nu ñuy tourner page bi dem tabax leneen liggéey ci leneen. président Ousmane Sonko ci 2024. waaw président président Ousmane Sonko euh, dama koy ñaanal yàlla yàlla gën ko yokk njub gën ko yokk njub damay waxtaan ak euh, démb sama benn waay mu ne man damay ragal mu woor ñu. ah. comme ni ko gars bi dafa diis imam mu ne ma pour ni ma ni ñu gars yi defee woon. Mm-hmm. ma ne ko maa ngi yow bi ñu xamante yàgg na waaw ma ne ko soo soo toogoon ba bés ñëw nit ñëw na la Mouhamadul Amin Dramé dalay wor léegi nooy def mu ne dama koy fëgg mbéj xam ne day fen rek. ndax gëm-gëm. waaw mu ndax gëm ma ne ko noonu nga toll ci man. Uh-huh. ma ne ko maa ngi lay waatal ci yàlla mi bind asamaan ak suuf président Ousmane Sonko moo ma gën a jub moo ma gën a jub. est-ce que loolu yor na réew. lan réew jub fii ci Sénégal. non jub jub moom fépp la baax jub rek kay yor réew ma jox la si exemple xam nga sénégalais yi eh, président Ousmane Sonko mooy koo xamante ni ni ñu ko càmbaree ci wàllu alal uh-huh. mosuñ ko ko càmbaree ko jàpp uh-huh. waaw te kenn mosul jël ci moom dara dama dama dama dama waxtaan ak benn kilifa uh-huh. mu may wax ne ma am na ñu jub ba léegi am na ñu jub ba léegi moom dafa am benn waay boo xam ne day liggéey ci benn béréb mais léeg-léeg bu amee soxla léeg-léeg day àbbu xarit yi muy liggéeyal téléphone mais du nangoo téléphoné ci téléphone bureau bi. Hmm. loolu yàgg na de. Hmm. mu ne léegi bi ko gars yi waxee loolu di mu mel daal da leen jaaxal. kilifteef bi ma am daraja ji. mais léeg day àbbu ne ko abal ma ma def benn appel ci seen téléphone. seen téléphone. wallahi lii kilifa gu mag moo ma ko nettali. Mhm. léegi affaire bi frappé ma euh, ma ma ma ma topp kilifa gi fekk bi mu doon bi mu doon wax loolu beneen ilimaan bu mag kilifa moo ko seede. Mhm. bi ñu génnee ma laaj ko mën ne ko waaw kooku kan la mu ne ma kooku président Ousmane Sonko la. mu ne ma Ousmane Sonko la boobu yëf yi day tolloogul fii nii mu ne ma Ousmane Sonko la maanaam Ousmane amul kenn ku séq ak moom xaalis ci àddina ngay noonam ngay adversaire am lu dul seedeel nga ko njub ñoom ñëpp nag Amadou Ba mii xam na kan mooy usmaan Sonko. fi ñu jot a jaar yëpp ci liggéey ñoom ñëpp ñëpp ko seedeel loolu. Uh-huh. ñëpp ko seedeel loolu. macha ku jub kooku bu téye alalu réew. mais kooku alal ji du ko sànq du ko sàcc. est ce que xam nga euh, nuuré bi genn sacc gu upp gi bëgg adina la rek mhm. mais mom yalla dimbalé nako bëggul adina Ousmane ku deudul la deug nga nga tegal ko fi miswi nga tegal ko ciébu jola moko ko gënal ah bo wo gëna saf sax waaw <laughs> ah xamna dara waaw mhm. donc dama la bëgg wax ne ne mhm. ji nit ñi am yalla nako yalla deugal kanta diko ko jox ay conseils ñun duñ ko jox ay conseil parce que li mu war a nekk ma nga ca li ñu séq ak moom mooy di ko ñaanal di ñaan tamit ñi ko topp na ñu gën a am xel gën a góor góorgóorlu gën a am jom changement bi nga xam ne moom moom la àddina bi yëpp di laaj Afrique yëpp mais du Afrique kese du du Sénégal kese mais Afrique yëpp la seen ndaw yu taxaw dégg nga. Uh-huh. tey bu ñu demee bay bay bay tëkkale président Ousmane sonk ak Nelson Mandela. Uh-huh. te man damaa gëm ne président Ousmane Sonko moo ko mën ci ay côté parce que man jàng naa Nelson Mandela bu nu jamee ba koy bay bay tëkkale président Ousmane Sonko ak ak Thomas Sankara te man xam naa ne côté yu bari Ousmane Sonko moo fa man euh, euh, Thomas bu ñu koy tëkkale Patrice mbaa te côté yu bari moo fa mën Patrice Lumumba. maam dañuy soog door dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ndax bu ñu la fi bàyyi moom tem ñu ne euh, télé bi sax ab Sonko moo ko moo ko moom ñu ngi lay bàyyi rek nga tàggatoo nga wax ñu euh, euh, jamono jii lañ leen la mën a xaar fii ci TNM TV. waaw mais yow nag mais li may mooy dama lay tënk imaam dama lay dama lay dama lay arrêté parce mel ni nag dañ lay jox antenne boo xamante ni antenne libre la li ma fi wax. Mhm. Eh, daanaka man na quarante et quelques minutes. dëgg la Sonko ñetti minutes rek laa ko tudd. Uh-huh. li ma wax yëpp kañ. Ah, mais tàgg tàgg gee gën a bari nag. kay di gën a non non xam nga. Uh-huh, uh-huh. xam nga eh, kaay ma wax la ñaar. tagg ak seede du benn. dëgg la maanaam damay wax li ma xam ci moom. lenn li ma xam ci moom. dëgg la te barki alxuraanul karim li ma xam ci moom sa waxaguma ko. billahi wal kitabi moo taxit euh, daal waaw comme nañ comme nañ ñam foofu waaw nañ ñam foofu ndax di nga am <laughs> euh, peut être occasion yeneen ci euh, tnm tv fii mën a yaatal liggéey bu baax a baax di la wax ni nag ñëw nga sa kër ñëw nga fi nga war a ñëw ñun leen mën la xaarandi ci bu yàggu dara incha allah hmm? ñu lay bàyyi nga tàggatoo waaw bu soobee yàlla xam ci janvier bi hmm, janvier Inshallah. allah bu ñu kiyee rek après dinañu tàmbali yenn yi ñuy war def ak yenn incha allah ñaan yàlla réew mi yal na si yàlla def jàmm. amiin yal na fi yàlla indi naataange. li ñuy ragal yëpp yal nañu ko yàlla fanqal. amiin amiin dañuy wax ne maa bayna xamdati aynin wa intibahatiha yugayiru llahu min xaalin ila xaal. diggante xëf ak xippi yàlla ci lay soppi lépp. waaw lu ne lu ne xaj na si. waaw lii ñuy ragal yëpp naan réew mi fii la jëm ak yëpp contraire bi mën na am. mën na am ñu dem ci élection lépp tegu ci jàmm. ki wartu bokk du bokk ñi war a bokk bokk kan ma warut a bokk président Macky Sall waaw moom wartu bokk moom leer na moom moo ko waxal boppam nee na ku koy xaar foofu doo ko fa gis doo gis waaw ku koy xaar foofu doo ko fa gis quant ay ay constitution ak yéeg ay ay conseil constitutionnel ak yooyu moom yooyu moom jarul xool di déedéet yooyu moom bu fa demee moom yooyu leneen la waaw kon mu ngoog ah, ñu ngi lay jaajëfal moom Al Amine Dramé ah, TNM TV nag ñëw ci concept yu bees bii rek benn la ci concept yi muy one by one ah, di ngeen ko xaarandi ak yeneen invité duñ si wéet nag benn yoon euh, ci euh, bi dee émission ak ay partenaires yu am solo ba ma si njëkk lim rek xam naa dina neex njaaye ni wala ñu sant Dramé sax mu jëm ci euh, jeytu jeytu nag di ab service yu leen di may nag opportunité yu bëri moo xam nag ci wàllu lekk yu am solo sucré wala salé daan ci ñëw ci yaatal ko gën leen a wanale ak ni nga xamante ni dañ la ñuy liggéey leen wax ni nag am na yeneen formule moo xam ci wàllu massage am na chaise bi am xam naa sax buñ ci noppee imam daañu ko may mu maase wu loolu tamit lu ah, am solo la jeytu nag def service yu am solo ci wàllu électroménager ah. di def wàllu euh, jaay ginaar waaye tamit loolu ñu duppee euh, wàllu céréales wax naa ko loolu yëpp nag bokk ci jeytu daañu leen ko gën a xamle ak public reportage bu yaatu incha allah yu tamit mu ngi ci euh, service yi ci wàllu di nga xamante ne mooy événementiel ay drone ak lépp loo xamante ne ko soxla ngir mën a seen événement lu jëm ci ni nga xamante moom mooy monter ay caméra caméra de surveillance muy xam ci technique wala informatique lepp rek wi gaadi dina leen ko offrir numéro yi ak euh, affiche yi dina jall da ngeen ko giss euh, ci biir émission ngir rek ngeen mëna dugg si bu baax baax ci liguey bi and ko ñun euh, ci at bi ñu jëm muy 2023 xaar leen concept yi xaar leen reportage yi ndax neena naa leen ñun askan wi lañ fi newal te askan wi nak leen rek lañ leen di ñaan moy ngeen wëy di abonné ci chaîne bi ngir mëna dolel bi les projets de société di leen rek jox dig dajé ci yenen jotay rawatina fi ci wan by one ak TNM TV la chaîne du peuple jërë Jeff. jëf.